asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci Nabi sallallahu ñu ngi leen di nuyu di ñaan yàlla dool daal ak jàmm si réew mi ñu ngi nuyu njiitu kër gi di ko ñaanal jàmm di nuyu personnel bi aussi maa ngi nuyu Cheikh Mbacke Ndiaye si Pikine ak Soxna Masala di nuyu Soxna Gañ si Gëy maa ngi nuyu Afi Màkk si Espagne di nuyu le commissaire d'ambassade ak le colonel Moussa Fall des et forêts maa ngi nuyu

Euh, ba daal vraiment laal sa affection touti affecté le touti kon lolu mën na ko def diabète da koy favoriser hypertension da koy da koy favoriser kon wala les colites yi nga xam ne feebaru bi nga xam da fay andi bir buy gonflé yu mel non bokk na si même la colite ulcéreuse hémorragique kon da fay bokk li sabab mom euh li mandal gay nak muy symptôme yi bokk na si ay légion

kon loolu daf koy daf koy def dinay ànd ak léeg-léeg xasan-xasan bien que bariwul du cas yëpp mais léeg mu ànd ak xasan-xasan mais bu demee bay xasan-xasan dafay ànd ak jam-jam kon loolu moom mooy li gën li gën li gën li mu ëpp lu muy jàpp nag mooy li féete le paume extérieur extérieur féete nii bi la muy jàpp nay laal muqueuse yi aussi léeg-léeg mais biti bi la ëpp lu muy lu jàpp dinay jàpp aussi le bras dinay jàpp l'avant-bras le bras l'avant-bras donc le bras lavant et la main ñett yëpp lay jàpp nay jàpp le bras jàpp l'avant-bras jàpp la la main kon ñett yëpp lay lay lay laal hmm? kon ñu bàyyi xel nay dem ba laal wey ak le cuir chevelu nay dem ba daal bopp seen bopp day weex tal def ay ak ak yooyu lichen plat moo koy moo koy def kon loolu ñu bàyyi xel dinañ laal biir gémmañ aussi ginnaaw lex ci biir lex yi da koy da koy laal def ay taches yu weex ay gaañu gaañu léegi nañ koy jaawale moom ak sofe fekk bokkuñu kon loolu mooy mooy mooy likken bi li koy faj nag nañ leen sama may ñaari garab benn bi mooy xobu siddeem fu mu defee taaj wala dara toyal xobu siddeem def ko si da koy wool bu yàggee day lañ xobu siddeem moom lu si lu si baax a baax a baax a baax la soo paree loolu na nga wut reenu fuuf ndax dafa lak-lak bu muy àndal ak reenu siddeem kon dafay ànd ak xasan-xasan ay taaj ànd ak lak-lak dafa baax bu ñu lay joxe jox la entrée informatoire nga boole ko su mooy fuuf bi kon fuuf ak dibutoon soo ko amee bu ne ñeent reen nga togg ba mu ñor si sa ndox di ko naan par genn wàll kaas te jël tâche yi boo ndekkee boo añal jël di def xobu si dem boobu di nga am di nga am jàmm kon loolu mooy Liggéeyaan Plan di ñëwaat beneen yoon si yeneen feebaru feebaru daal euh, question yi ñaar la kii daal nee na grippe moo ko sonal grippe nag joxe naan lañ joxoon si corona bi metti metti wutal xobu ngool lañ

joxaat la kàttan te ku ëmb da nga soxla loolu soo paree nga wut bisaab xonk xooj ko moom dee nga ëmb rek wutal bisaab xonk xooj saa yooyu lekkee naan si kaas waataay da nga koy tamal sa bopp muy ndékk añu la reer soo demee ba juróomeelu weer bi nga wut xobu daxaar sa loxo ba mu fees nga baxal ko si litre ndox su baxee cinq mille nga segg ko di ko naan par kaas waataay boo ndékkee boo añu ba soo amee xobu tool sax moment boobu à partir du deuxième tool bi am na ñuy bàyyi nag léeg-léeg bi mais xobu tool bi ko commencé waa ñëwul dara juróomi xob sax boo ko amee baxal ko si litre ndox segg ko di ko naan par kaasoo tey suba ngoon kooku boo ko def damay dimbali non seulement am doom doo sonn mais boo amee doom sa biir du rëy dafay dellu kon loolu njariñ li xobu toll am boo nee nag ba yëg siiñ yi nga xam ne yaa ngi waaj a mat bi nga wut persi nga tibb sa kaas loolu boo ko defee moom boo yeexee sa kër nga yow si ne si kàttanu yàlla ñun tàggu fii leen jox naan bi su beneen jataay jërëjëf